sen ak ak sen yelef da ma la ci don laaj sa xalaat na ngeen ni dundé ak wa askan bek yoy wa mais sante yalla bu baax rek xana xaw xaw xaw na metti tuuti mom xam nga handicapé moom mu nek ci société mom melon ni ñi mel amo tank amo dara nek si société xam nga dund mom day xaw metti métti mom wa mais yaay jema xol noy jema arrange dund rek yoy rek ay metti metti wa mais ñu ngi sante yalla bu baax mom sante bu baax mom handicap ni lama ja xam moy ñeeram leen da te yàlla tax lu way am may leen ba amul balen ñu dem loolu la xam ci handicap yi. xam nga buñ jotoon euh, li ñu war a jot kon do gisub handicap sa bo gis rek sa xel ne dang ko wara a sarax parce que koy jot li nga wara a jot ko la gis dana am leen luma xalaat ci yow. mais du ciagenu bo la gisé nga taxaw rek ak say bekk sax wala nga taxaw sa pouce pouce sax di xaar bis wala nga wara fay sax mu daal di lam poosam di la jox kon da fay melni ñun population bi tax ci way gouvernement bi nag na mom des fois di nga gis handicapé yo xamantani dañuy jang ba am sen diplôme. war a liggéey ci société yoo xamante ni bu ay lañ ci liggéey ak yooyu ñu am problème difficulté ak yooyu wala soit ñu am diplôme kenn du leen boole ci askan ba pour ñuy liggéey dañuy mujj obligé yor seen diplôme daal di toog loo xam ci loolu. waaw Sénégal moom li ñu war a def rek mooy di dimbale handicapé yi xam ne indi handicapé yàllaa ko bind muy handicapé mais doomu aadama la comme doomu aadama yëpp. te nit ki yàlla mooy bind doomu aadama nu ko neexee ndax ñun ñii bu ñu bu neexoon suñu borom du ñu am suñuy ñaari tànk mais suñu borom mooy bindee doomu aadama noonu kon ñun ñii mat. ah di gis ñi nga xam ne tamit yàllaa leen yàllaa leen def nii nañ leen di li di leen jàppale di leen dimbale te yàlla tax. waaye laaw gay sama xalaat ci ñoom mooy ñu jar jàppale lañu ñu jar a dimbali lañu parce que ñu am jom lañu parce que dama gis lii xew ci réew mi fii ay kat yooyu yëpp li ñuy néew néew doole ba ci inondation bi passé dañu dugal seen xaalis ci biir may ñaan man état Sénégal ak population Sénégal yëpp ñu jàppale leen wax dëgg yàlla. dañ leen di war di dañ leen di war di handicapés yi ci boppam sax lañu war a jëkk a jox place ñuy liggéey ndax ni ñu mel yàlla moo leen ko teg te neexul leen ñooñu normalement bu yoon teg yu dow dëkk moom gouvernement bi war na seetaat xam ne ndimbal war na ci ñoom. Sénégal dafa mel sax amuñu handicap ndax boo demee ci dans les pays lu mel ni fii ma taxaw ci arrêt bis bi rek bu handicapé ñëwee dañ koy may xàllal ko mu dugg bu dee ci rang yi ci sona fu mel ni. place yi ñuy fayee ay Sonatel ak ay yëpp dañ leen di privilégié fii na ñoom dañu defee ni handicapé sarax rek lañ xam ci moom te ne boo dee handicapé taxaw nii sax di doon liggéey bu la nit gisee Sénégal yi mu dee xalaat ni moom sarax la rek la war a def. Euh, européen par exemple ni ñu defaree bus yi dañu fiy xalaat euh, waaye laago yi ak étage yeeg yooyu genre société yeeg yooyu daal. léegi yéen da ngeen di am euh, difficulté yéeg wala dara daal ma laaj si xalaat si. waaw bis yi moom dañ si am problème moom bis moom kam man ku mel ne man moom bis moom na jël bis moom damay bàyyi sama chaise roulante lem ko dugg si bis su ma wàccee fekkee fu ma damay calculer samay dem sax moom su may dem kam su may dem fenn fu mel ni xam ne dama dugg si kër moom may dem may jël bis moom damay waaj damay lem sama sama vélo bàyyi ko foofu ndax du ma mën a jël ndax bu dee si arrêt car yi nii chauffeur dañ laa duna am temps pour jël la biis yeeg affaire yooyu. man taxaw naa fi benn ànd biiraam benn xel bu góor da koy mu ñëw mu jégal ko tali mu doo ko dem tant que wàccul ay 18 heures lay wàcc tant que handicap bi ñëwul xel bu góor bi di ñibbi te boo bëggee mën naa la fa xel bu góor bi dëkk wax la fu mu tudd ak yëpp. ma ko léeg-léeg handicap bi nii oto arrêté ba war a yéeg nga xool mii moom nga ne ana waa mbaa nga doublé te loolu neexul yow mii dawal li la yàlla def boo ko def bu ni la yàlla def bu ko yàlla defoon moom mooy mooy mel ni yow comme na yaa xaw a tane nga xaw ko dimbala tuuti ndimbal daal du jeex ci àdduna miy handicapé miy njàccaar ku tane sa moroom dimbale ko te yàlla tax. may ñaan gouvernement bi di ñaan président de la république euh, problème mu kaar yi bi ñu koy defar waroon nañoo bàyyi xel handicapé yi pour si yéeg bi ak wàcc bi parce que doomu aadama dafa war a am yërmande ci moroomam du dëgg léegi li ci nekk mooy. Euh, lu wéy xaj na wéy na waaye li ci kanam dañ ko war a programme seet parce que kaari yi normalement war nañoo mën a def pexe pour handicapés yi di ci yéeg ndax kaari yi ñëpp ko bokk ñun ñëpp ay doomu sénégalais lañ du dëgg. gouvernement bi kay moom daanaka mën naa leen ni lépp responsabilité parce que fii non seulement sax dafa am da leen loo xam ne sax dama ko gis ci réew mooy dafa mel ni ku dul yuuxu rek la preuve mooy gis nga nu mu tuddati ñii doon def fi grève la fin temps yi. yu mel noonu rek ci ngay yëngu handicapé yi faak ñu ay nit wax leen na ngeen génn jël seeni pousse-pousse baare tali bi def nii ñu doo leen a mën a gestu te du noonu. handicapé day dem di jàng jàngam dégg nga handicapé day jàng ba réussir nit ñi war leen a jàppale lépp lu ñu am rek ñun ñoom war nañ ko am kon nañu xoole ne sunu bopp nañu xoole indi handicapé yi suñu bopp loolu lañu war a def xool ne handicapé yi nañ leen xoole ni ñuy xoolee suñu bopp rek ñu jàppale noonu di leen dimbale te yàlla tax. la moo sa xalaat ci ñoo xamante ne dañuy wax dañuy jël ay saaga wala ay wax ju ñaaw jëmale ko ci handicapé maanaam di leen woowee ay lafañ bi maa naa leen gumba beeg yooyu lan mooy sa xalaat ci loolu. ah xam na ñooñu noonu seen xel toll ku ci amoon benn sa kër boo génn romb benn nga yaakaar ba sa biir kër nga fekk ci mbedd mi rek xam nga xel yamut bu ñëpp meloon neneen kon ñu defee nee waaye gannaaw loolu seen xel toll ah nan continuer noonu man de handicapé ak man laa yemale def ma tax yàlla def ma ñaari tànk moom def tax def ko handicapé mu toog def ma tax yàlla def ma may ma ay bët te ma yàlla gumbaloo ko nan sant yàlla te xam ne yàlla mu ko bind bindu ma. ñàkk xam la rek parce que li olof di wax dund gu sotteegul lu ne xaj na ci ñàkk a xam la rek te seen yarin moo demee noonu te xamuñu àdduna waaye nit tànk deewagoo rek dara weesugu la ñooñu daal di ñaan yàlla ñu yaraat seen bopp xam ne yàlla moom moom lépp. te bu ñooñu amutoon ñun tamit duñu suñu mat sax duñu ko xam ndax bu yàlla yemale woon ñëpp rek kenn du mën a dimbal kenn kenn du mën a jël condition euh, euh, daal maanaam kenn du mën a dimbal kenn kenn du mën a jël exemple ci kenn. war na am ñu mel ni comme yéen ñi ni ngeen di gëstoo ni gouvernement bi lii ngeen di def mu jël ci acte ba nga xamante ni dina mën a dimbali handicapé yi surtout maa ñiy góorgóorlu handicapé bi dem ba jàng ba am diplôme wax dëgg yàlla wala mu jàng ba am métier am war na ko mën a dimbali. waa léegi yow ban message ngay lancé askan bi maanaam ci seen ak ak seen yëleef pour ñu jox leen ko te mérito ngeen ko. te ngeen bokk ci nit ñi bokk ak askan yi ñu leen boole ci société bi. waa xanaa gën ñu jàppalewaat rek xam nga moom nit moom buy dund société te yàlla dimbale ni ngeen nit mel meloo noonu moom ba nga ku la dimbale affaire yooyu. waaw bu nit ñi daal gën ñu bàyyi xel xam ne ñun société bi bokk na am ay bëgg-bëgg am ay yor soxna yor ay njaboot xam nga. ñu war kat ñu war a jàppale xanaa ñu gën a jàpp bu baax rek gën ñu jàppale bu baax a baax nu mën a dimbale te yàlla tax rek di jàpp si bu baax a baax.